partagé leen ci réseaux sociaux yi la ñu laal avion bi ñëwaat. da jàpp ni looloo tax mu réagir. dama ne ñëw na réagir na. Mm. kon def na effet man sama objectif li ma ci jublu woon mooy mm. bu fekkente ni état bi euh, euh, je sais que dinañ ko jëli mm. jëlee guñu ko léegi moom xaaru sax ñu jëli ko defal na leen bi gën a yomb ñëw na. donc man sama objectif atteindre naa ko dama ne lundi na dem 7TV def émission am waxati yu rëyam. loolu moom yaakaar naa du nekk information bu bees boo xamante ni sénégalais dañ koy xaar mais li yëpp encore une fois Macky Sall moo ñu ko teg parce que moo jël ay nit yu mel nii di leen teg ci ay bokk direction donc c'est dommage. d'accord Cheikh Omar am nga ci gis-gis. <coughs> ah mais c'est c'est c'est parce que Salma moom moo toog joxe information ne waa ji mu ngi cegas lu pàcc mm. waa ji xëy na mu ngi Ndakaaru. xëyul de daa toog trois jours après. waaw su ma nee xëy mooy ñu xëy ñu indi vidéo ne mu ngi Ndakaaru mm-hmm. moom journaliste la moom moo xam xibaaram ak lu tax mu génnee ko ak objectif bi nga xamante ni moom la ci doon wax mm-hmm. euh, ensuite la vidéo qu'on a montré c'est ci contexte politique bi mu xewee wax bu ñaaw bu ne am na fi mm-hmm. acteur politique la comme yeneen acteur politique am na yu fi jàll au delà de wax jëf yi ñaaw am na fi ay bakkan loon na fi bi ñuy teg loi d'amnistie bi dañ ne dañu dindi amnistie effacé lépp loo xamante ni lu dugg ci kuréel politique il a un am fu bokkoon sur le plan politique il faut qu'on nag des démocrates donc pour man les déclarations qu'il a eu à est-ce que dafa am penalement responsable un secondo à ce est-ce que dafa am lu ko yoon toppee. xaw ma ah, dama ne. waa xaaral ah, man maa ne waa xaaral foofu nga nekk dafa am solo. pénalement responsable buñ ko toppoon dama ne moom dafa bokkoon ci ñi bëgg pour ñu def troisième mandat. waaw loolu yëpp mën a nekk bokkoon ci ñi d'accord ci ñi reporter élection yi te report élection lan la andi Sénégal ay nit faatu. waaw mais xam nga donc ay propos am am na jeexital. waaw mais xam nga. Euh, ay propos. propos am la dama ne am na ñu fi toog ñoo xam dañ leen doon fay sax ñuy wër di fen di wax ci troisième mandat day ay journaliste lañ. Mm-hmm. wala deuxième quinquennat. Mm-hmm. man mii toog na ay nit ñuy toog di défendre waxu troisième mandat gëw ma ko parce que la ma gëmoon mooy samay principe man je reste sur des principes. Mm-hmm. Souleymane Ndiaye ak Paata Ndiaye laa ci yemale. bis bu fekkee ni yoon soxla na ko fu mu mën a nekk ci àdduna nañ ko loqati indi ko bu dee am na lu mu def lu dans sa gestion comprendre est-ce que vous m'avez compris mm-hmm. l'autre mooy jusqu'à présent dañu nekk ci ci opinion politique quand tu émets des opinions politiques tu attaques des acteurs politiques les acteurs les acteurs politiques attaqués mm-hmm. et pour man le plus important tey yoon ak état bi nga xam ni ñoom la ñu fal kuñ ci soxla foo mën a nekk am nañ les moyens dem jëli la dañu am lu ñuy wax coopération judiciaire am nañ Interpol donc pour man à ce niveau nit mënul génn Sénégal mënul nekk dañu am ay frontières. mais non. ba même bu nit mu pour nga tere ko génn sax ci réew mi dafay am une notification parce que boo ñëwee ba aéroport dafa am police des frontières. soo defoon yow lu defuut dañ lay signaler bind sa tour bàyyi ko fa. exactement mais layoo tubaab këyit buñ am na ñoo xam yaa ngi dégg le premier ministre Sonko mu ne mesure conservatoire c'est-à-dire am na ñoo xam ne jàpp nañ ni am nañ seen dossier. ba tax na on prend des mesure conservatoires pour des raisons même de de sécurité. moo tax ñooñu pour ñu mën a génn. bu ñu egsee aéroport dañ leen di wax yow mii yow na am lu lay xaar mënoo génn parce que dañuy bañ nga génn nga rëcc. am na ko jot a génn am na ñu dem Dubaï. état bi bu leen soxlaa dina dem mu loqati leen donc pour man le plus important à ce niveau man je condamne pas une personne. sur parce que dans un contexte politique on a entendu tous les propos de tous les camps hmm. pour avoir une démocratie il faut démocrate. d'accord c'est ça Serigne. Hmm? Hmm? ban lecture nga ciy def. waaw bon jàpp naa ni euh, li premier ministre wax Ousmane Sonko. ku sàcc nag nañ la leen rëbb dëmm yëpp ku ku sàcc nañ la. waaw parce que sa planète Mars wala nañ dem ba la indi la d'accord c'est clair. ayca parce que jàpp naa ni Sappo. xam nga SAPCO déjà boîte la bu nga xamante ni en réalité war nañ ko càmbari tam. Mm-hmm. ba mu mm-hmm. baax bu baax a baax a baax parce que cap koo dafa bokk ci structure yu ñu tegoon pour ñu am gestion bu baax ci wàllum suuf si mm-hmm. moom ak ñoom des ko sax nangam ak nangam mais tey bëri na ay scandale yoo xamante ni ci gestion foncière bi boo ko seetoon ba saytu di nga gis loxoy SAPCO ci biir si ay wàllu terre yàggul dara fële ca Mbuur am na ay nit yu génnoon doon décrier boîte bi ni muy fonctionner ci wàllum ci wàllum suuf jàpp naa ne nag le résumé wax la la résumé wax ji yëpp muy li premier ministre wax Ousmane Sonko boîte la boo xam bañ ko ko ñu ko denkoon moomu ko en réalité su fekkee ni def na ay mauvaise gestion man jàpp naa ni mënul rëcc état du Sénégal. jàpp ko tàllal nu naraam waaw mënul rëcc l' état du Sénégal. ça c'est te l' du Sénégal dafa am une volonté ferme. par rapport ak reddition des comptes. loolu boo xoolee même le premier ministre ak le président de la république dañoo exigeant si loolu. loolu dañ ciy dem jusqu'au bout du bout de leur logique parce que c'est une exigence nationale parce que le régime précédent le régime sortant ñëpp xam nañu ci régime bi fonctionnement régime bi depuis 2012 ba keroog ñuy wàcc ay scandale yu bëree bëri épisodique la ñu nemmeeku ci yenn boîte yi donc kon jàpp naa ne aujourd'hui la Salma wax tamit am na solo parce que en réalité mën naa jàpp ni la motiver génnam tamit aussi mooy la ca Salma wax en réalité loolu la parce que avant Salma di tudd loolu gisuñu ko mu def benn réaction. kon moom opération bi mu lancé en réalité moom moo def effet. moo waral yenn génn yi mais loolu amul njëriñ xam nga li am njëriñ mooy ku ci justice war a interpeller dana la interpeller te jàpp naa ni autorité yi volonté boobu fermeté boobu am nañ ko par rapport ak matière boobu parce que Ousmane Sonko c'est pas la première fois. mu génn di ko wax am na nag ñoo xam bi mu ko waxee automatiquement sax tiit nañ ba di def ay post ku si mel ni Mansour Faye génn automatiquement si loo xamante ni daawuñu ko tàmm si moom. Mm-hmm. te en bu daan wax sax da nga daan gis ci waxam daf si daan fësal Ousmane Sonko. Mm-hmm. mais cette fois ci gisuleen fenn fu mentionné Ousmane Sonko ce mm-hmm. monsieur là nga xam ni kon. nee na sax waa daa ragal rab yi nekk assemblée. waaw xam nga rab yi mu ragal ñu ngi ci kanam. lañ doon assumer assumer wu assumer tuñ ko. en tout cas daal ku am wàll. ci reddition des des des des des des des des reddition des comptes mhm. di nga ko layoo ak yoon. d'accord kon jàpp naa ne loolu moom mooy eh, li ma mënoon wax ci loolu quoi. c'est ça Maty yow it ban jàngat ngay def diggante demam république tchèque ak dellusiwaat fii ci réew mi. ah en tout cas daal gis nañ mu def vidéo ak benn militant ne mu ngi nii ci biir këram te danoo ne dafa dem république tchèque mhm. lan moo nu woon ni foofu mu nekk biir këram. Mhm. gisuma ko la aussi. ah ko mu dox ci mbedd yi daal xam nga nag euh, waa APR euh, bëri na si ñoom ñoo xam ne ils sont forts manipulation dara rien ne nous dit que ni il est au Sénégal actuellement ndax émission bi lundi la te lu fekk lundi dafa des. lu ne xaj na fi waaw lu ne xaj na fi. secondo aussi peut-être s'il a quelque chose de particulier ndax euh, déclaration incendiaire yi Salma yóbbu vaar léegi nii. des gens ont dit moins grave que moom li mu topp wax nii ñu jiiñ leen appel à l'insurrection wala atteinte à la sûreté de l'État wala ay provocation directe à un attroupement armé ndax si ay déclaration kese de ñu tëj leen mandat de dépôt pendant des mois et des mois avant am amnistie bi di ñëw wala ñu jékki-jékki dafa leen main levée mm-hmm. donc euh, man Souleymane Ndiaye moom euh, moom ak euh, ñu mel ni moom. Ahmed Suzanne Camara anam moom. ma nga nungu ah, moom moo waxoon nañu nañu dem euh, taal kër Sonko. voilà te moom parce boobu ñi fi nekkoon. dañoo jël dëkk bi def ko lido. Mhm. ñi bokk ci ñoom. di def ay tojaange. di wax musiba. defuñu ko. ñeneen ñi bokkul ci ñoom. ab oustaz Assane Seck. waaraate kat wax dara. ñu ko ñu si mm. kaso bi tëj ko. dama ne la. Mm. actuellement nii ak amnistie bi. Mm-hmm. lu ci waay waxoon. wala lu ci waay defoon. ci diir boobu kenn mën la cee. topp dara parce que waaw. pénal moo tax je parle pénalement responsable. d'accord waaw ndax eh, actuellement ni moom quoi qu'on puisse dire tant que bi tëbul. tout ce délit politique moom wala tout ce qui est en rapport avec les événements qui se sont succédés de 2021 à 2024 moom. doo doo leen ci mën topp ci dara. donc voilà mais une chose est sûre ah. SAPCO moom waxuma la audit rek waaye plage yooyu yaa ngi wax suuf si mais plage yi nga xam xam nga man nag ñoom ñoo bokkoon nekk fa fële ne Ouest euh, Nord Foire euh, après yëngu leen juste. Hmm. foofu leen seen seen siège nekkoon temps bi fa kii di nekk DG Pape Malick Ndour. Hmm. après si la Souleymane Ndiaye mii ñëw ah moom Pape Malick ñu yóbbu ko fële ne donc mais. liggéey bi yow mun yow lu concret maanaam loo mën a yëkkati teg sa loxo ne lii sab koo def na ko mënoo koo gis donc loolu moom jarul sax Salma